fii ay jus laa fi doon jaay ak ay crème ak kii daal laa fi doon jaay lépp ak ay waaw moom wax dëgg yàlla ñu ciy gis bopp bu baax te it ñu ngi ciy barkeelu waale ndax ñu ngi ciy maye waale waaw mbiri sëñ Touba kay ku sañoon moom du yem fii day gën dañuy affaire day gën a nekk xéewal rek waaw <laughs> bu nekkoon fii ba weer sax gars yi dinañ ñëw dinañ barkeelu ah dëkk bi lu mu naqari naqari jaaykat yi faaw ñu jaay ñeneen ñi tamit faaw ñu barkeelu ci am mbiri sëñ Touba la waaw. Ah, dox dox bu yem rek dañuy sant rek affaire yi moom dañuy sant rek saa su ne moom dañuy sant. waaw waaw loolu la loolu la ñu ngi siy gis suñu bopp waaw sant yàlla quoi waaw ah, jus yi moom maanaam dañ koy jaayee ñaar fukk. fukki dërëm waaw fukki dërëm moom waaw ñu ngi barkeelu di tee tamit ñun tamit tamit dañ siy joxaale suñuy barkeel. si Sédiatta lañuy jaay non kii non depuis démb démb ba léegi ñu ngi fi waaye sant yàlla baax a baax de non ci biir dëkk bi lañ daan jaay la Dakar moo suñ ko génn moo tax ñu ñëw fii indi fi Sédiatta yi doon jaay waaw waaye waaye ñu ngi koy jaay ñeenti téeméer mooy Sédiatta original bi waaw mu ngi jar ñeenti téeméer. waaw ah ñu ngi jënd di ngi sant bu baax a baax xam naa ne fekk suba la mën naa mu xaw a tane waaw xam nga Serigne Touba moom amul morom de moo wàccaale na moins 4000 tey nag moom ñu ngi xëy wàccaguñu mën a doon 10 mille wala 15 000 daal. bu baax di boobu ba léegi moom lu ñaw mu wax dëgg yàlla dañ koy jënd waaw dañ koy ñaw ba ndaxte doon koo soxla quoi am ñu bari dañ koy jënd pour ajjuma ci suba te dañ ciy jàppale bu baax ñaw lii ba mu àgg di la ko jaayee trois ensemble xam nga loolu jàppale la ñëpp ay doomi sëriñ doomi jullit lañ taalibi Serigne Touba man bi Serigne Saliou laa sëñ Mourtala moom Serigne Saliou mooy sama sëriñ ñun lépp Serigne Touba la lépp Serigne Touba la rek bu baax sax incha allah waaw bu baax waaw jërëjëf ok.